fonction publique locale nak masalan danaka que méngoog ñi nga xamni ay fonctionnaires lañu nek ci état li leen wutale rek ñi ngi ci collectivité territoriale mais même droit yi fonctionnaires yoyu am ci biir état central loolu la ñooñu am ci biir fonction publique locale bi ci dess am nga possibilité bo fonctionnaire fonctionnaire ci fonction publique locale man nga fay jógee dem liggéey ci fonction publique bu état man nga tamit jógee ci commune bi nga nek dem ci benen commune man nga jógee ci commune bi nga nek dem ci département man nga jógee ci département dem ci commune lolou nak niñ ko waxé moy faaw ñaar ñi ko séq rek d'accord fi nga nangu bu la bàyyi nga dem fi nga jëm nangu la jël ba paré am lu la faire. donc lolu fonction publique locale ay avantage la am na at wala ñaar fukki at nit ñi pour man ko donc nous mo gouverneur yi ma gërëm intersyndical maire yi président conseil départemental bu Rufisque aussi les honorables députés au conseil des collectivités territoriales ñi conseil économique social environnemental parce que remarquez daanaka ñëpp ñëw nañu liggéey boobu nag pour ñu def ko faaw ñu farlu ci maanaam commune yi nga xam ni jëlaguñu seeni arrêté pour dugal ñi nga xam ni audit bi wax na ni mën nañoo dugg bu ñu amul arrêté modèle arrêté yaa ngi nii jox nañ ko gouverneur bu ñu xamul texte yi bu baax defar nañ document boo xam ni texte yépp mi ngi ci mi ngi ci gouverneur donc loolu lépp mën nañ cee jot ndax li ñu bëgg mooy fii ak mars di dee arrêté d'intégration yëpp ñu mën koo jël pour faxe ba fonction publique local ñu intégré leen wax ni rek liggéey bi kontaan nañ ci jëfin bi moo moo des sur le terrain mais nii ma gisee ñu defee CRD bi am nañu yàqin ni incha allah région Dakar dina bok ci peloton de tête ci région yi nga xamni ñom ñoo liggéey ci fonction publique locale waxat tamit ni gouvernement bu Sénégal ci ndigalal président Macky Sall li def ci ci ci décentralisation def ko ci ay fonds yu joggé ci état bi ci gouvernement bi jëm ci collectivité territoriale masula vous na un exemple waxna ni 2012 bo jëlee fonds de dotation yi amoon 2012 millions benn qui million la ci région de Dakar la wax millions les mêmes fonds qui jëlé ci 2020 egg na ñetti milliards ak genn danaka bo fonds d'équipement yi limu en 2012 ñetti téméri millions la ak 2020 egg na ci ñaari milliards ak téméri millions, fonds yo ñi nekk Pakassène te ñu doon juróom fukki collectivité territoriale ci ci région de Dakar parce que région de Dakar juróom fukki collectivité ak juróom-ñaar la am nañu ben benn département boo xam éligible guñu ci Pakassène donc daanaka juróom fukk ci juróom fukk ak ben benn yépp war nañoo séddoo fanweeri milliards ak juróom-benn ci ñeenti at yi ñu jub donc loolu day wone rek président Macky Sall fonk bu mu fonk décentralisation jël na décret néna fukki fan yu qui ci wéru octobre journée nationale de la décentralisation wax na it ni PACASEN bi commune yi nekk Sénégal ak département yi ci amagul dina maasaleel ñep pour ñu am ñu ay financement yu doon jox leen